loolu mi ngi commencé am euh, xam nga am na banque am na benn euh, regroupement disons cardiologue yi dañu am seen mbootaay. bu mhm. ñuy wax société sénégalaise de cardiologie ñun ñu ngi liggéey ci loolu. yàlla dafa def ko tamit man banqaas bi nga xam ne mooy toppatoo mbiru statistique surtout lu ñuy wax crise cardiaque euh, loolu man dama ci dama ko dama yore banqaas boobu ci ci ci société sénégalaise de cardiologie tax na ñu ngi am léegi ay données statistique yuy wane ne contrairement xëy na ak li nga wax léegi nii xam nañ tey première cause de décès si muskalaf problème cardiovasculaire mm -hmm. ce n'est plus les problèmes maladies infectieuses ce n'est plus du tout ça mm -hmm. c'est les, les premières causes la presque Sénégal ak même sax yi réew ñuy wër première cause du décès adulte c'est le maladies ce sont les maladies cardiovasculaires loolu moom taxaw na leer na nañ mhm. après sax xëy na cancer moo si topp après maladie infectieuse yi après la donc loolu lu am solo la tey xam nañ loolu te euh, données yooyu commencé nañ si liggéey depuis 2009 gën nañ am ay doom yoo xam ne taxaw nañ mhm. yoo xam ne mën nañ ci taxaw ne fii la yëf yi toll euh, te ñu ngi ciy liggéey nag ak waa ministère de la santé mhm. pour que ñu xool naka la ñuy def pour que nit ñi su dee loolu feebar bu mel noonu am nañ ko nag lañ leen di faje ñu egg ci faj bi loolu ñu ngi ciy def liggéey bu am solo parce que kenn réerewul mbir ne faju cardiaque mm-hmm. dafa am solo dafa cher xam nga waa métti na diis na si poos te cardiaque laajul yeexantal mm-hmm. euh, su ma nee ñun dañu dem jëndi machine boo xam ne un milliard kooku dañ nit ki forcement dina xalaat ne machine bi rek mooy jël un milliard su dee machine boobu c'est un bon machine de haute de, de, de dernière génération la aussi mm-hmm. euh, parce que boo ko gis seetlee vraiment si c'est c'est c'est le c'est le standard international mm. moom la ñu am euh, mais machine boobu su jaree loolu da lay leer ne ku fay dugg tamit dina laaj loolu loo